ay ñi ngi leen nuyu di leen ziar yeen ñi chiffre ma sport ñu wara a ñëw yéen ci benn vidéo wàcc ñanto bi muy Sadio Mané bi nga xamné ni ma ko waxé souvent moy suñu ndaye mar moy suñu Kylian Mbappé moy suñu Lionel Messi toujours dañ koy séance ñu xol di sedd chaque weekend ñu koy séance ñu xol di bék ginaaw bi mu jógee ci Brésil bi keroog la njëkk football tolok ci 20 minutes tey mu téra dugat football tolok 20 minutes de max bo xamné max bu extraordinaire la euh, max bi suivre nañ ko bu baax baax Sadio Mané comme ñu xamone loolu lépp daa nga leer ci vidéo bi mais laata ñoo ñoo xam mu nekk jour boo xam ne ni ko xamee woon Sadio Mané jour la vertical Sadio Mané ci milieu terrain bi Sadio Mané ci axe bi def ay décoche décoche jéggi deewoo di jël ay balde accéléré doublé deux personnes mu éliminer facilement dem def passe ñu dugg ci terrain bi dugg ci défenseur bi benn bal ba Zakaria bu muy teel a mara foog fa la ko jëlee éliminé latéral bi courbé sur face éliminé défenseur bi défenseur bi teg ko loxo mu daanu euh, mu nekk loo xam ne lu extraordinaire la kon Sadio mi xamoon ci wàllu vitesse wàllu condition wàllu puissance wàllu mental gis nañ Sadio boobu Sadio boobu gis nañ ko lenn rek moom manqué Sadio Mané bi ñëwaat def passe décisive bi di dugal bi camp yi camp yi yëngatu caax yi di def ay nekk di nekk homme de loolu ñu ngi koy xaar xam naa bientôt Sadio nañ ci commencé ñu bàyyi xel Sadio Mané titulaire titulairewul xëy naa nag bu titulaire am nañ yaakaar bu baax ak yaqiin ne Sadio Mané dana dugal bii te ñun ñëpp gëm nañ loolu bu baax a baax ndax Sadio Mané bi jour la boo xam ne li ñu gis ci moom dal na suñu xel te gëm nañ ne dana tëywaat li nga xam ne mooy football mondial ndax vraiment vraiment Sadio bi ñu gis tey gis ko semaine bee passé wuutulu dara ak Sadio Mané bi nga xam ne moom lañ gisoon avant muy jël Belgique kon nañu ko ñaar bu baax mu dugal ay buts yu bare bari balaa saison bee jeex kon gaa ñi loolu ma nekk vidéo bi woy leen ngeen abonné di commentaire ngeen di partager di liker ngeen ñuy xaar fi suñu seen ci Rmo Sport ak yeneen vidéo ak yeneen jàngat suñu ñàcc bi nga xam ne ñoo ànd ci terrain yi yàlla na ko yàlla mosu ci bari see ak cat merci yi am ngeen jaajëf bu baax a baax